d'accord comme ni ñu leen ko waxee woon donc la ñuy njëkk def rek mooy xool euh, Excel maanaam euh, lan la composé woon nan la bindoo ñu xool euh, boo tijjee Excel lan ngay njëkk a jàkkaarloo lu nekk nan la tudd ak voilà détails yooyu d'accord boo tijjee Excel li ngay njëkk gis nii ci kaw a kaw fii yaa ngi gis am nga quick access tool quick access tool fii li fi nekk mooy par exemple enregistrement automatique retour wala boog nga def dara bëgg kaa dindiwaat genre raktak donc dalay permettre nga def ay ay mbir. ci nu mu gaa a gaawee donc Chrome EQ Access Tool boo paree ci côté bi fii am nga lu ñuy tuddee search donc boo bëggee def dara xamoo noo koy defee mën nga ko tàppe fii boo ko tàppee Excel dina la guider euh, des fois di nga gis solution maanaam fooy jaar ba def nangam ci biir Excel voilà donc fii dinga gis euh, am nga pour euh, wàcce minima minimiser Excel bi wala nga yokk ko wala nga wàññi ko genre comme ça am nga possibilité aussi tamit tëj ko donc boo pare voilà donc kon euh, loolu mooy euh, baar bi nga njëkk a jàkkaarloo ci kaw amaan nga deuxième baar fii donc euh, deuxième baar bi mi nga xamante ni mooy menu yi donc bu ci nekk ci biir dafa am fonction yu mu àndalaat ci biir donc loolu dañuy tuddee ruban donc ci ba ci biir menu bi donc bu ci nekk dafa amaat ruban ci biir donc menu bi dangay gis boo ci cliquer deux fois day day minimiser wu day tëju boo ci cliquer waatee ñaari yoon mu tijjeeku amaan nga benn flèche bu ndaw fii pour def loolu boo cliquer da ngay gis day dem boo cliquer waatee dangay gis mu ubbi waatal la menu bi wala nga cliqué ci kaw euh, turu menu bi deux fois donc bu ci nekk ci biir comme ni ma ko waxee am na ay fonctions yu nekk ci biir dinañ ci ñëw par benn benn voilà donc à part ça amaan nañ fii lu ñuy tuddee euh, nu mu tuddati euh, formulaire donc fii mooy fi ñuy dugalee formulaire de calcul yi nga xamante ne moom la def ci biir Excel donc boo ko tàppee fii aussi tamit boo cliqué fenn automatiquement boo fekkoon na ne fi dafa am lu ñu fa bind automatiquement li ñu dara ko indil ci adresse bi. voilà donc fii aussi am nga adresse cellule yi donc cellule boo ci cliquer am na adresse am na tur boppam voilà donc euh, dinañ ñëwaat léegi xool nan la correspondant wee ak cellule la mooy cellule voilà boo xool lii la nga xamante ni moom la ñuy tuddee euh, lii la ñuy tuddee euh, column d'accord column li mooy column lii la ñuy tuddee ligne lii nii la ñuy tuddee ligne ok nga xamante ni foofu la column ak ligne amee intersection loolu la ñuy tuddee cellule cellule bu ci nekk dafa am adresse am mooy adresse bi affiché fii voilà booy xool fii da ngay gis ABC ba mu jeex euh, alphabet donc boo ñëwee fii ci côté bii nga gis ñu numérotiser ko mu am un ba ilama euh, à la fin quoi mu limite voilà donc boo ci cliquer par exemple yaa ngi ci E A da ngay gis E yaa ngi ci E 5 E 5 da ngay gis moom la lay indil fii su ma ñëwoon fii da ngay gis maa ngi ci lan I 7 moom la lay indil fii moo leen I 7 donc loolu mooy adresse su euh, cellule bi mën nga dem nag mën nga cliquer fii aussi tamit bu la neexee nga dem ci adresse bu la neex. automatiquement de la fay yóbbu M6 mu yóbbu la ci M6 d'accord amaan nga fii ci côté bi li nga xamante ni moom la ñuy wax euh, ligne pour défiler donc benn euh, pour défiler ci biir euh, Excel sheet bi ok amaan nga fi tamit beneen pour défiler ci côté bi nga xamante ni mooy côté lettres yi donc défilé bi pour chiffres yi la nangam mu dem défilé bi ci côté lettres yi la donc ba fi sa Excel yam ok ci suuf fii nga am lu ñuy tuddee fooy donc comme nañ ko xamee Excel ban genre programme classeur la donc ci biir mën nga créer ay fooy yu bëri fooy bu nekk mën nga koo tuddee tour bu la neexee mën nga cliquer fii ci kaw deux fois tuddee fooy bi tour genre ok yëpp ci ñëw formation bi voilà donc fooy bu nekk ak li nga xamante ne données yi nga xamante ni moo fa nekk tey données yi nekk fii données yi nga xamante ni mooy nekk fii bokkut ak données yi nga xamante mooy nekk ci fooy bi voilà tey su ma bindoon fii dara ma ñëw tuxu dama ci beneen fooy du ma ko fa fekk mais mi ngi ci ban mi ngi ci fooy numéro 4 ok voilà donc ci suufa suuf yi am nga lu ñuy tuddee mën nga xool am na point de vue yu wuute yoo xam ne mën nga ko am ci biir Excel bi d'accord moo nekk nii aussi tamit fii am nga possibilité zoom cellules yi donc mën nga ko zoom mu gën a yaatu boo ko bëggee gis comme aussi am nga possibilité minimiser euh, wàññi ko donc moo nekk noonu ok donc kon ci tënk loolu mooy euh, li nga xamante ni moom la Excel composé woo ci ay panel ci ay tableau donc fonction yu ci nekk dinañ ñëw gis ko benn par benn bu soobee yàlla Eh, loo bëgg a def dinañ la wan guidé la wan la yoon boo jaar ba def nangam sàngam ci biir Excel dinañ jox di daje suñu vidéo yi di ñëw nekk leen si jàmm